أنا juróom benn araf la bu dem juróom benn bayit de bare rek da ciy ñaan ku ne xam ne ne ahlu badar ñoo notoon yéeféeri mag yi comme dañ leen notoon nag bu ko jëlee day ñaan moom it suñu borom notoon ko ay noonam tasaareel ko ay mboono ay noonam ñëpp ñu tàggoog moom li nga xamee ne suñu borom subhaanahu wa taala noonu la musule woon waa ahlu badar ñeen daje woon di waa Màkka ya na leen yàlla musulee ñu door leen ba dàq leen ba tasaare leen ba rey ci ñoom juróom-ñaar fukk jàpp ñoom juróom-ñaar nangu seen bagage ya noonu lay ñaanee yàlla ba tey suñu borom dafa lee ko ay noonam noonu mu jël alif gu njëkk ne asaalu ko dana ma ñaan al yawma tey jii yàlla lay ñaan bi li badrin ci dara jaay waa lu badar fastajib yàlla na nga nangul sama ñaan lii ñeel ma bi ci seen dara ji ñoom waa lu badar wa yàlla na nga li nga xam ne xadri mooy sama daraja de yàlla maa ngi lay ñaan tey jii di ko jaaree ci dara jaay waa lu badar yàlla nag ma nangul sama ñaan gi ci seen daraja te yàlla na nga yëkkati sama daraja de ndax ñoom kat waaw seen daraja dafa yëkkati ko ba ñoo féetee kaw ku ñoom ne moo tax mu ne yàlla na nga sama daraja ci seen daraja de yàlla nag ma nangul sama ñaan kon nag maa ngi lay ñaan tey jii di tawsul di jaare ci darajaay ñu teew woon Badar te 313 yëpp ak ña ñi amoon ngànt te mënuñu dem ñoom ñëpp waaw ah, boole naa leen ci la maa ngi tawul ci seen seen daraja donte du ma tudd seen tur waaw ah, waaye dama leen di golobal ñoom ñëpp waaw ah, du ma tudd kenn naan kii la ak kaala waaye ñoom ñëpp rek Abu Bakrin ak Omar ak Usmaan ak Ali ak yonent bii mu tuddoon ci gannaaw ca lañ bokk de Jibril mi mi bëgg a tudd la bokkoon de ak yeneen malayka ya kon asaalu ko maa ngi lay ñaan alyawma tey jii bi li badri ci darajaay wa ahlu badar fastajib yàlla na nga nangu lii ñaan ma biim ci seen daraja de aw accordel ma sama ñaan ci seen daraja wa ahli ta yàlla na nga li nga xam mooy sama daraja de sama na may lahum ñeel lam ñoom waa ahlu badar aw arida sa ngërëm de ndax kuy ñaanal waa ahlu badar la nga leen a ñaanal mooy ngërëmal yàlla ndax loolu moom lañ doon wut ci aduna da ngërëmal yàlla li féete kaw lu lépp ne doomu lañ doon wut ci guddi ak bëccëg bëgguñ ko waaw lu dul rek am ci ngërëmal yàlla loolu rek lañ ci doon wut loolu rek lañ ci bëggoon de xam na nga may lu mu ñeel leen arida sa ngërëm wa ajri wa xayra ajri ak ngën ci ak payoor bi maa yëfooku ba may leen loo xam ne sax féetee na kaw sonnuhum seen njorto ya xadee jële loo xam ne day daw rek di continuer di gën a bëri yàlla na leen may ñoom wàllu badar ñi am sa ngërëm waaye sa yool ba ca gën na nga leen ko may na nga leen ma ba may leen loo xam ne sax njortuñ ko woon ñoom waa ahlu badar lu féete kaw seen njort ya nga xam ne heure bu ne day yokku de moo tax ne xam na nga may lawum ñee leen arida da ngërëm ñi am ko ñoom waa ahlu badar wa xayra ajri ak ngën ci ab yool ñi am ko ñoom wa waa ahlu badar bi maa yëfooku ba loo xam ne sax dana féete kaw sa nuum seen njort ya xari jili loo xam ne day daw rek di continuer de na nga tàggatal lii ñeel ma àll ci ka nga xamee ne ta tawala moo féete woon hijri sama gannaaw fil baxri ci biir géej gi raw da xaatirin tàggatu koo xam ne aji am kattan la si sa jëri kay borom jajji de te lum jajji mu daal di jajju de yàlla ki nga xamee ne li ëpp ci tukki bi moo ko yoroon te nga seetee si rek lakaleer nga xam ne moo tax ba suñ tubaab ñi génnee ko ndar waaw yóbbu ko ca réew yu sëriya yóbbu ko ndakaaru yóbbu ko mel ni Conakry Karambasa waaw me yooyu yëpp li mbar wali ba keroog mu yàgg Gabon de waaw ca Mayomba waaw ca Gabon ca Galwa fépp fu mu mën a dem rek ki tax mu dem fa gannaaw dogalub yàlla ba mooy la de mu ne kook nag nanga ma ko tàggatal ki nga xamee ne moo féete woon sama mbir yëpp nekk sama wàll nga xam ne fu ma dem rek fu ñu ma yóbbu rek moo ne nañ ko fa toxal sa loolu yëpp jublul ci lu dul ngir fitnaal ma ah jublul ci rek lu dul ñu rey ma jublul ma lu dul lu dul rek waaw ma caalit ci liñ may def de waaye mostuma deltu gannaaw de moo tax mi ne saqri nag ma tàggatal li ñeen ma àll ci ka xam ne tawala moo féete woon hijri gannaaw de aw ci biir géej gi ah koo xam ne daal fu ma dugg ci biir gi jëm moo ne nañ ko fa yóbbu kooku nag ma ko tàggatal mokkalal ma ko musal ma ca moom rawda qaadirin li ma soxla na mooy tàggatu koo xamee ne tëliwul dara mooy ko am kattan ci lépp si sa ke borom jàjj xam ga yàlla lu mu tàggat mu tàggatu lu mu mu jàjj kon bu jàjjee xolub noonu ba man naa bàyyi sëñ tuba bu tàggatee bu tàggatee cëri noonu ba man naa bàyyi sëñ tuba commencé di ko yéenee jàmm di am mandi ak ñeewantu ci moom de ba dit yàlla nga tasaaree bihim ci seen dara ñoom waa ahlu badar sam la xedaayal majri mboolum samay noon aaw ñi nga xam ne maa ngi ànd ak ñoom fil bari ci biir jéeri ji wal baxri ak géej gi wasafita yàlla na nga sellal li nga xam ne ajri moo di sama yool yàlla mboolem samay noon yi nga xamee ne damaa ànd ak ñoom aaw ñi topp sama gannaaw ba ma nekkee ci biir jéeri ji ñoom ñëpp ci yem ak géej gi yàlla na nga leen tasaare musal ma ci ñoom ñi tàggoog man ba kenn dootuma jubluwaal waaye yàlla na nga sellal yàlla na nga bëri li nga xam moo di sama payoor waaw kon yow yàlla ba dit yàlla na nga tasaare bi te daraja waam lu badar sabla xeddaaya mboolim samay noon yi almajara ñi nga xam ne ñoo ànd man ci dawwaay bi dee ci géej gi moom la ñuy wax saxaar ñoom la àndutoon ak moom bu dee ci géej gi ñoom la ñuy wax gaal yi de waaw ci la duggoon ànd ak moo tax mu ne sam la eddaayal majari mboolem samay noon yi nga xam ne ñoom la ànd ak ci dawwaay bi de il ci biir géej gi te saxaar gi wala bëri ak géej gi te mooy gaal gi de mboolem noonu yi ma ànd ñoom ñëpp nañ dem ba tàgguk man tasaaroog man a ah, wasafita yàlla na nga seeral ajri sama yool duha iya samay ñaan ista na nga ko nangu biim ci seen daraja fil bari ci biir jéeri ji wal bahri ak géej gi wax sim nii te yàlla nga musal biim ci seen daraja ñoom waalu badar min duri ci lépp loo xam ne xëytu loor la de yàlla accordel ma sama ñaan ci daraja waalu badar moo xam ñaan yi ma ñaan ci biir jéeri ji ak géej gi wala ba ma nekkee ci biir géej gi wala jéeri ji waaye yàlla na musal ci daraja waalu badar ci lépp loo xam ne noonu lor yu ñu ma bëgg a teg la yëpp ñu bëgg teg musal ma ci darajaay wax lu badar de rabbi yow sama borom kur yàlla na nga doole nekkal lii ñaan ma bi ahli badrin ci darajaay wax lu badar wal tarda yàlla na nga tàggat aaw waaw xanhum walis leen de wal toasim aaw wal tarda yàlla na nga doole gërëm xanhum walis leen de wal toasim te yàlla na nga doole màggal xadiri sama daraja de yàlla na nga fare ak man di ma nekkal ci waxtu ne lépp lu ma bëgg rek moo xam ndimbal la yow yaay sama kilifa nang ma nekkal ci loole ci darajaay wax lu badar waaye ñoom wàllu badar maa ngi dagaan ci yow ñoom ñëpp nga dolli leen sa ngërëm de ah waaw na xam gërëm nga leen waaye yàlla leen dolli ngërëm la te yàlla sama daraja heure bu ne yàlla na nga koy dollee yokk di ko gën di màggal di ko gën di yëkkati wala tax te yàlla na nga dollee gërëm xanum walis leen ñoom waa ahlu badar wala toxasim te nga dollee màggal xadiri sama daraja de kon loolu mooy juróom benn bay yi nga xam ne moom la tënkee ahlu badar muy